Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw moo Abdou mu ndaw moo xoromu dëgg dëgg dëgg daa dégg taay nit ñi naan Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw nee nee nee na Montpellier la bëgg dem signé signé contrat Montpellier <laughs> yor yor yor nga taayu gone yor nga taayu gone waaye visage bi visage bi moo magee ak te sën sa sa visage bi boo demee Montpellier pour ñu pour ñu tester la problème kanam gi lay doon quoi visage bi visage bi moo baaxul visage bi moom daa magee parce que yow grand frère suñu président bi nga Diomaye mii grand frère am <laughs> Abdou mu ndaw ji Abdou mu ndaw la topp dégg Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw comme xamoon man tuuti ci as football mu ne léegi day lijjanti nu mu demee Montpellier pour que jéem a jàll test yi boo demee as moo lay téye problème as ngay am waaw maanaam yor yor nga jëmmi gone yor nga jëmmi gone yor nga taayu gone mais visage bi visage bi boo magee visage bi waaw kanam gi kanam gi ak tëstan yi lañ lay xàmmee quoi <laughs> yow xaar rek borom whatsapp bi day démissionné nga dugg xanaa kay gën a neex mooy installation assemblée nationale bi nga daan fekk di ruube nekk ci biir mel na benn ñebe ci cin installation boobu la dee la la doo ko fekke <laughs> bu jàllee rek saa day démissionné nga dugg yow problème ab du mu ndaw yow assemblée mënoo fa dem Abdou mu ndaw Abdou mu ndaw moo xoromu dëgg dëgg dëgg daa dégg taay nit ñi naan bàyyi leen Ousmane ak Bassirou ñu continuer di doxal li ñu war a doxal yéen nag dee leen fu ngeen fekkee vidéo boo xamante ni li ñuy wax ci lu baax ci Sénégal la républicain leen vidéo boobu aimé leen partagé leen ko roxee maa lay bu baax a baax fier len ci sen bop li ngeen doon xex nax sayul te xaar len ba dimanche insha allah rabbi ba basir jomay fay wala Ousmane Sonko def discoursam ci affaire Thiaroye 44 bi 80 ans yene ngi wër deug bi mun leena fexe ba am deug bi dem Macron génn dem waxal président basir jomay fay ne ko ñom accepté nañ massacrer amna amna ngo na ngoo. waaw la defoon. doguma la de mais gis nga Pape Ndongo nañu gën a nañu gën a sant yàlla quoi xam nga tax ñu war a gën a gën a sant yàlla. Mhm. parce que ça montre que ne carrément ñun dañoo bëgg Sénégal ñun patriotes ñun avancement wu Sénégal ak intérêt Sénégal dañ ciy dox depuis ñu ngi ciy dox kon yàlla ñu yàlla jubal yàlla dëggal yàlla leeral ñu lépp. amiin ba son excellence gën a gën a dëgër. parce que bii mooy troisième discours boo xam ne da ko tenir boo xam ne c'est niveau international. ñu koy xëy ñëpp di ko waxtaanee taxaw na Nations Unies wax leen li mu leen di wax avant loolu am na lu mu njëkk a wax taxawaat Nations Unies waxaat discours bu intéressant démb bu taxawati waxati discours boo xam ne Sénégal yëpp tey nguur gu fi mëtti jaar da ngay ñëw maral tubaab yi mais doo leen wax dëgg moom mu am fitu nekk xale bu ndaw am quarante quatre ans taxaw man loolu moo tax ma tey ma gën a gëm ne Sonko jomaay jomaay Sonko tey laa ko gën a gëm tey. xam nga tax ma gën ko tey gëm ko gën tey ba avant ñuy xam son excellence euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Ousmane Sonko la njëkk a gis muy tenir discours bi taxaw def ko xeexam avant loolu son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye lañ gisoon mu jël li nga xam ne mooy problème mu nengaleer teel ko boppam problème mu nengaleer bu yegsee fii tey c'est grâce à Bassirou Diomaye Diakhar Faye affaire de Thiaroye 44 bu yegsee fii c'est grâce à Seydina Ousmane Sonko amul benn président bu fi mës a ñëw taxaw ci commémoration bi ni, di dal parce que li len c'est clair mettez-vous à notre place ndax di Sénégal ñu jël une base militaire ko fi nga France di sol suñu tenue di seen biir wala bëgg ngeen coréen wala russe wala russe wala américain sol seen est-ce que di ngeen ko journaliste bi bouche bée amul lu parce que dafay xam bu waxé instant mom dina monde parce que xamna na fu muy posé question te xamna na fu muy wax ak xamna fa la ko war a waxee léegi léegi nag dof yi ñoom dof yi xamuñu xew question da nga koy répondre ben doomu adamal mu laaj la nga laajaat ko benen question dugal ko ci ci cabaxal boobu pour réponse bi mom ci lolu lay génne dootul wax dootul am lu wax parce que bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg ay maa ngi dégg ñu naan ay non bés bu ñu génnee base militaire français yi non français yi dañuy nangam est ce que Ablaye Wade bi ñu génnee base militaire français yi fii nii indi tuub eh, indi naar yi est ce que dafa tax tubaab yi bàyyi ñu. mais est ñu gën a am respect ci ñun. te dinaa la xamal affaire gis nga il faut que ñu xam ne Sénégal dafa am ñu ko soxla Sénégal le monde entier dañ koo soxla Sénégal waa Afrique dañ koo soxla ASB ñii di di ñuy bàkkoo nii les panafricains là Sénégal dañ ko soxla xam nga dañuy soxla ko ci xeex bi tey Sénégal daf leen la won nekk carrément man c'est ma nation avant. <laughs> man c'est le Sénégal d'abord. képp kuy woote le Sénégal d'abord doo ci génnee patriote. billahi les patriotes vous êtes ouvert d'esprit. vous êtes des des des des des jàmbaar. je peux je peux même vous appeler des jàmbaar man yéen laa gëm ne yéenay ay jàmbaar parce que mu tax ngeen nekk jàmbaar parce que bu seen président génnee wax li muy wax def discours boo xam ne tey assemblée ñëpp dañuy fàtt seen gémmiñ yi yéen da ngeen di génn soutenir ko.

xoolal senegal élection bi passé ñu dem ci élection kenn deewul donte am na ñu doon jéem loolu. du may léegi dafay wan ne adduna bi yëpp dañuy teg bët ah. Sénégal lu ñu bëgg mooy gis nañ jàmm ji fa am leneen lu fa am ku fa dugal sa mm-hmm. alal doo ko perte. mais mm-hmm. dof yi ma xalaa bàyyiwuñ ci xel xamuñu lan moo xew ay naxa naxa lañ saagat guddeeg bëccëg loolu lañ loolu lañ xam ñëwal. xam nga xam nga le ministre de l' économie et des finances dafa def loo xam ne. Euh, kii nii euh, euh, nuñ ko wax sax gab gabis xaw ma xaw ma gaps am na benn kii boo xam ne dañu nekkoon ci benn zone de turbulence boo xam ne dañoo jàppoon Sénégal dugal ko ci pays yi nga xam ne dañuy def ci menace de terrorisme ak yooyu noonu xam nga Sénégal mosul am ay terroriste te loolu loolu loolu xam nga lan moo ko waral xam nga lan moo ko waral. Mm-hmm. lenn moo ko waral mooy tey day tax tey investisseurs yi duñ ñemee ñëw investir seen xaalis si dëkk bi parce que dañ naan que carrément ñun buñ fa investir suñu xaalis amaana tey esamtuli mën wala dara tey esamtuli euh, def ko en xam ne dootuñu amati mm-hmm. ci taawu Macky Sall noonu la demee woon mais ñoom ministre de l' économie et du dafa dindi loolu génnee Sénégal ci loolu noonu ba investisseurs yi bari ñu ngi bëgg a dawaat pour ñëwaat Sénégal pour investir kon gouvernement bi bu ñu leen jaajëfalu lañ lañ lañ war a wax xaaral ma bàyyi sama ma grand Scarface mu ñëw après ma tiyaat tuuti ma dama xam. jaayef Saalum balaa ma koy dugal man fierte bu ma am tey nekk gën a nekk sénégalais aw ma ko tey rek yàgg naa kaw am mais depuis ñiy ñëw laa li ma doon xeex li waa ji di wax naan li ma doon set gis naa ko mais li ma doon xeex chaque jour bu ma xëyee di ci gën a am fierté xeexuma nag jël ay jaaseeg dem wàcc ci terrain bi dëgg la mais maa ngi woon fii guddi ak bëccëg. di wax sama xalaat di wax li ma xalaat mais chaque jour bu ma xëyee may gën a am ci ñii fierté te ñii ñun ñoo leen war a gunge ñun ñoo leen war a taxaw parce que bari na ñu taxaw tey jii pour Sénégal nekk ci gu guuta ndax bu ma gisee Maimouna Ndour fay invité Robert Budji naan ko kooku di ko wax ne ko beneen senegal bu bu bees judd na mu naan ko non non Sénégal loolu tradition la bu ñu judd bu bu bu fi pouvoir ñëwee. il faut ñu gunge ko jox ko assemblée nationale bi ndax Macky Sall amoon na cent vingt mu ne ko madame madame Maymouna Afrique bii ngay gis Afrique francophone bii amul président bu fi nekk bu ma amulul bu ma nekkul ak moom xarit mais dama ne li ma gis Sénégal ci politique booy ñii amuñu cinquante ans indi ko beneen Sénégal bu bees laa gis forcé na ko ba sonn bu bëgg pour mu wax contraire bu ne ko déedéet du ma ko wax. beneen Sénégal bu bees laa gis ba pare ne ko yi Macky yéen a ngi yéen a ngi génn di wax chaque jour problème mu euh, protocole Cap Manuel mu ne gudde ak bëccëg yéen a ngi wax ay protocole Cap Manuel mu ne ko bàyyil protocole Cap Manuel avant muy am ci bopp Macky Sall la njëkkee mu ne ko nan la njëkkee ci moom mu ne ko mën naa la ko wax ndax maa fekkee man maa toog. xam nga tubaab moom day buy wax danaa la maa fekkee wala maa gis wala yaa signé mu ne ko maa toog Macky Sall ne ma maa ngi lay ñaanal yow sama frère ci 2012 ba léegi yaa ngi ma gunge waaye nag dañ maa wor te dinaa jël pouvoir bii nii bàyyi ko génn ci xale yi dinañ jël pouvoir bi mu ne ko loolu na lay amee moom mooy wax de Robert Boucher mu ne kon am Sénégal bi mu yegene ne dina am mom ci mom Macky Sall protocole Cap Manuel ci idem la ci la ne mu ne ko mom mo tok ak conscience tranquille mom moko def waye après ci le mom mom Robert Bourgi ci la don Atepa ak ah, pas Atepa ne ko legui kon jox ma numéro Macky mu ne dana Atepa ak Macky Sall di déggante mu wo Macky Macky ne ko joxal Atepa sama numéro bu ne foofu la affaire yi jugee biñ koy wax malien boobu nu mu tuddati xaw ma Yara xaw ma mu ne ko xaw ma kooku li ma fekkee laa lay wax li ma fekkee idée bi ci Macky sàll la jóge chaque jour ngeen ne Ousmane Sonko dafa deal ak Macky sàll pour dem ci pale bi. yàlla attan na leen ak moom Macky Sall waxul de mais ki wax moo gën a sës Macky sàll ndax doon toog Macky sàll toog jabaru Macky Sall toog ñoom kese ak yàlla. Oscar Fess tijji sa micro maa ngi lay ziar bu baax.